yàlla la muy fay mooy li mu wax ci alxuraanam ji waaw noo noonu la ñàkke doom doom de lab lu nga ne ñoom dañu woo ci ñu lànk ñoom ñëpp lab nañu suñu borom yàlla alab leen yàlla sale noo sale ak noo mën a yàlla nekk li innaa naka nun yàlla lammaa maa u ba ma bëggee ba bari xamal naa ko mun yàlla noo leen sëfoon yéen nit ñi dina mooy tey maa sëfoon seeni maam fil jaariyati ca gaal ga maanaam suñuy maam ñoo nekkoon ca ga yàlla sewe leen muy taraaga ji munu teral nit ñi ñun nit ñi gëm wala ñun ñi suñuy maam nekkoon ci ndigal yàlla léegi nag ñoo ngi bëgg a bàyyi ndigal yàlla dellu ci bakkan dellu ci seetaan suñu borom yàlla duñu fàttali loolu ولنجعلها لكم تذكرة loolu lépp gaal geeg yim demee yépp ngir ma defal leen ko yéen nit ñi yéen jullit ñi yéen xeetu ملاق حسابية وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سبحان الله نينا سبوبا su suuf si jëllaañoo biddiw yi jëllaañoo suuf seeg ba si lépp nekk pënd nit ñëpp taxaw fi kanamu yàlla kenn ku ne la nga defoon ñu won la ko nee na nit ñi ñaari mbooloo la ñuy doon mbooloo moo xam ni ndeyjoor la ñuy féete ak mbooloo moo xam ne càmmoñ la ñuy nit ku ne nag bisu keroog ngay gis sa téere xamu leen ne kenn ku ne ci ñun ñi fi ne ñaari malaaka ngi ànd ak moom malaaka mu ne yor këyit malaaka mi ci wetu ndeyjooram di bind jaamu yàlla yi muy jaamu yàlla ak jëf yu baax yi muy def malaaka mi ci càmmoñam di bind jëf yu bon ak bàkkaar yi muy def nga dem ca yotta ba mu bind nga dem ca suba ba mu bind ñuy julli si jàkka ja ngay waxtaan ak jëw mu bind ngay def lu yàlla tere mu bind mbind yooyu yu gën a xaamatee suñu borom yàlla da koy dajale muy ab téere kenn ku ne am nga ci sa téere kenn ku ne nag sama borom yàlla naa dañ lay jox sa téere waaw dañ lay jox sa téere boo ubbee téere ba fekk ca saw tur ubbi rek Abdou Aziz Touré doomu aadi Ture ak Ayda Si judd ci Fass Ture ci bis sàngam ci weer sàngam ci nangami waxtu waaw la ko tàmbalee foofu ba fi ruuge rote ñu def ko deux mètres percal def ca bàmmeel ba tey lisimé lépp lañ koy bind lisimé lépp lañ koy bind ci téere ba ba ko defee nag kenn ku ne bu joxee sa téere fas saasa ngay mën a jàng fee boo nga baa fee boo woon baa fas saasa ngay mën a jàng ñu jox la nga daal di ubbi rek xool sa tur waaw xool sa tur gis ku jàng de ku jàng ak téere ba mu yàgg muy jooy xet waaw jàng téere ba mu yàgg muy jooy xet am na muy jooy ay njeexum ay sengem dañ yu rëy yu mu defoon te fàtte fàttewoon na ko bu yàgg defatu ko woon xelam ndekete malaaka ñoom bind nañ ko mu xool ko nag xam ne daal tey jii moom ci du wér safar amul sax lu mën a tax ana muy def ba du jooy waaye njëriñ muy jëriñ waaw di jàng sa téere nga yàgg rek geesu xam ah ne nga la doy téere waaye daal di wuti sa kër kenn ku nekk sa téere te malaaka yi lay jox téere bi téere yi kenn ku malaaka yi jox sa téere waaye malaaka mi ni mu la rek da nga ci mën a xam yow foo jëm ndaxte saa borom yàlla def ni ñu nar a dem àddina seen téere bu leen koy jox malaaka mi dégg dégg ca def ndey joor su ñëwee wax ak moom wax bu teey na koy am sa téere bari noonu jaar ca def ndey joor jox la ko jox bu teey ànd ak kanam gu leer ne fa am naa man uutiyee kitaabahu bi yamin koo xam ne kii dañ koo jóge ca def jooram joxe ko fa ak téeréen muy jàng ñu jàng ah, yàlla day buur bu baax nga gis waa joo xam ne ji dafa defoon ci ay caay caay lu bari def ci ay tuyaaba lu bari xanaa jaxase na waaye nag tuub na ba tuub jotee tuub na ba tuub jotee mu neex sa borom yàlla yàlla baal ko mboolem ay caay caay baal ko mboolem ay bàkkaaram ak tooñam ci yàlla boole yenn saa yi suñu borom yàlla day jàpp bàkkaar yi sapp koy tuyaaba ndax baax ndax baax jàpp bàkkaar yi sapp koy tuyaaba ndax baax lépp ci kaw sàpp nga duuf ci waxtu yi nga war a ngay jàng sa téere di jàng di jàng di jàng dëgg lool kontaan lool maare lool téere bi tey da nga sawar ci koo xool da nga sawar ci koo jàng ma nga bëgg ñëpp gis ko ñëpp xam ne yow yow la yàlla defal nangam ak nangam ak nangam ndax yaa doon jàmbaar sàngam ak sàngam ak sàngam nangam ak nangam yaa ko defal ngir bëgg neex yàlla nangam ak nangam yaa fa jaaroon ma nga lépp yaa defal ko ay tuyaaba ak ngëneel nga bëgg ko gis lool fayaqu amama nu tee kitaabahu bi yamini koo xam ne fii ab téeréem bañ ko koy jox dañoo jaar teetu ndeyjooram fayaqul ma ngay wax naan haa um waaye nit ñi kaay leen xool laaj haa um kaay am leen iqraw kitaab ya jàng leen sama téere bi inni rantu anni mulaqin kitaab ya man da defoon naa du ma ràcc defoon naa du ma ràcc de ndax daal def naa ci ay càmba boy loo xam ne daal wala def naa ci ay sàggante naa ci ay sàggante ak gàttañ nit yi mën a def càmba boy nit ki mën naa bañ a def googu càmbar bay waaye mu gàttañ lu gàttañ lu diggam ak yàlla toppatoo ko ni mu ko war a toppatoo dundinu ko ni mu ko war a dundale te loolu doy na tooñ yàlla kat bi moon mu woon la ko xamal ne yàlla bu lay baal say tooñ it dala koy jëkka woon te kat da ciy jaar ak yow waaye nag ginnaaw nag da laa yu baal jëmee rek ndax tuubal nga ci waxtu wa nga waree tuub te nangu nee sa tuub dina la ko baal dina la ko yombalal waaye nit mu jaar ci wax nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na yàlla bu dee wax nit ci ay mbiram te am na yoo xam ne daa jiwlu ay njaaxum la ah te yàlla na ko ci àddina buggul ko wala ku ko dégg te ñun ñëpp ñu tiri te yàlla waxee ñëpp na ko bi ah kaay kaay mu ñëw ne ko topp si wala bëgg wax si mu bu baax a baax yonent day wax de mais yow mi xamul loolu xew. nga topp si bu baax ba jege ko bu baax mu ne la nangam nangam di yaa ko defal si bi nga tëxët nga ne si ah sotti na nag de mais ak safara dog mi lay gis sama yàlla nga ne ay man fu ma jëm ñu nga ne si man da ngay da nga ne ngam rek ku la noonu nii rek nga daal sama borom yàlla li ma lim lim ba la nga def lépp mu jaar saan yow mu ne lii lépp yaa ko defoon ma suturaal la ko ci adduna ba maa ngi yow rek a ko xamoon kenn xamu ko ku dul maa ngi yow noonu ma la ko suturaal leen ci adduna noonu laa la naa ba laweti nii baaxe nii bare nii leen ma ne ndax topp bànneex rek bànneex jëru ko bànneex dëru ko te ku continuer ci mooy yàlla continuer ci fañ ay ndigalam ndax di yaakaaru sëriñ wala nga da la na yërmande yàlla bu baax la lu ma neex def ay yàlla ko neex def moo tax suñu borom yàlla ne daañu def nit ab jaare ko boorub ndeyjoor teral ko yàlla tuddal ko ay bàkkaaram yëpp ba noppi nag baal ko ko du na yàlla ko tudd kay du ko yàlla tudd yaakaar ne tey ji doon do rëcc moo tax mu ne inni walan taani mulaqin xisaabiya man day def woon nee na daal sama sama rek la dina tàng jër waaye nag yàlla baal na ko ko lépp fa huwa ba moom waajoo ji fi iishati raadiya mi ngi nekk ci dund bu neex am na itam ñoo xam ne ñi foofa sax duñ fa jaar ndaxte nit yàlla yi ay catégorie lañu ñuy dem àjjana ay catégorie yu bare bare lañu ñuy dem safara itam ay catégorie yu bare bare lañu kenn ku nekk sa martaba fa yàlla ak sa mbaax mu ngi aju ci sa góorgóorlu ci yoonu yàlla rek ni nga doone woon jàmbaar ci jëfe alquran ni nga doone woon jàmbaar ci jëfe sa ndigalal sayyidina Muhammad jaar ci sunnaam lu toll ne la nga doon jàmbaar rek lu toll ne la ngay lan ngay am ci aw deminu àjjana war a ko sa boobu moom waajoo ci ci échec rajo mi ngi nekk ci biir bu neex amal nga lay wax ci saara fii jannatin aaliya mi ngi ci àjjana yu kawe kawe kawe kawe àjjana bi nga xam ne day kawe lool te boo fay yéeg doo jaar ci iskale aajowul ko doo jaar ci ascenseur di bës courant muy kale yooyu aajowul ko aajowul ko àjjana moom fa sa xel ne yar rek nga bëgg faa nekk nga bëgg faa dem ginnaaw sa xel ne ne fa yar rek da nga fa daal teew ci saasi benn nga teew foofa ci saasi mbaaloo nga teew ci saasi kutuufuhaa daaniya àjjana joo xam ne garab yaa nga meññ gàtt gàtt gàtt ñëw xamu xamu xam àjjana bekkoor du fa jaar àjjana aajowul taw aajowul lay aajowul jaat xeet meññit maa nga meññ gàtt sa sap sukar neex lool dàqut lam fap daani la boole ci jege suuf ba boo koy fàq doo yéeg da wutub balaxu sa nga tëdd defiru sablal boo defee ni ren jot ko boo ko mosee tënkam jaa dàq yem tënkam jaa dàq yem mu nga xutu fu hada mi te kat lépp ngi ne gàññi te yow dong yaa ko moom lépp ngi ne gàññi te yow dong yaa ko moom joli fra nga la yàlla teral kër gi nga dëkkee birig ah lu muy doon meuble yi ci dëkk kër kërug àddina la muy doon meuble yi ne tabax yi moom mu sa xaalis lay doon birig yi ngaa ñu di kër ku topp sa bànneex tax ba mosoo ko demoo fa yow rek yaa perte ak loo ak loo mën a mos ci àddina yaa perte dañ nekk ni boole koog di boole ay malaaka yu leen di wax wax yu leen neex kulu lekk leen ba suur washrabu te ngeen naan ba màndi xaj yu am lekkin wu neex naanin wu neex loolu lépp lu ko waral loolu lépp lu ko waral bima aslaftum ci sababat ay jëf yu rafet yu ngeen jiitaloon fil ayaamin xaaliye ca fan ya weesu woon ci àdduna li ko waral mu noonu jaar ci alquran ak sunna te rafetal aw jaar yi waaw kon bokk lay waral kër yu rafet yooyu ku ca bëgg koo xam ne kii njël daa xaw a jafe mbub moo sama xaw a jafe téere boo jàngee wala a jafe dépense a jafe fas woo ji xaw laa jafe di ñu loo koy dee di gàtt ci ba àjjana lépp ne te kenn du ko bay fa la jàmm ne kenn du fa ñàkk kenn du fa góor kenn du feebar sama ku baxas dugg dootoo dee dee kay jeex na feebar amul ñàkk amul lu naqari doo gis doo ko dégg lu neex rek ba kañ ba faaw ndax lan da ngaa jaarul ci alquran ak sunna gaa ñi kaay leen jaar ci yoon alquran ak sunna gaa ñi kaay leen jaar ci yoon alquran ak sunna noonu la suñu borom yàlla nettalee mbir ñi nga xam ne ñooy jéem a jubal léegi nag mbooloo bu ca def ñoom li seen mbir فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما yalqaahu bi shimaalihi koo xam ne kii nag teg téere dala ko malaaka mi yëg dalaa gis ak rëgëb tàmmoñ xëy laa këma foofa day waaja dana fa rëcc rëcc gu rëy te teg rëcc fa yaqul day wax ne yaa laytanii lam uuta kitaabiya ay ak naa xam ne damaa jox biir ay man li ma doon yaa laytani ay aka neexoon lam uute kitaabee ñu damaa jox sama téere bi walam adri ma xisaabiya ay aka neexoon ñu ngi dem maa rek la yaa laytaha kaanatil qaafiya ay aka neexoon ma dee ak neexoon ba ma dee dee di génn ma ma ca dekk yal na fekk muy borom alal yal na fekk ñu naan ko yaa moom réew mi yal na fekk muy borom mbooloo yor ay dof yoo xam ne yii bu bu bu diglee ñu gaaw wala liggéeyindaat liggéeyindaat bu dee borom ma jëriñ sama alal ji bari de ma dara halaka anni sultaaniya man day sama nguur ga alal ji maa sama ma dara. borom nguur gi ak sa dëgg nee na sama nguur gi alak na alaka am na sultaan yi sama nguur gi alak na ba ma doonee buur ñu naan ma buur buur ma suuf si bi dafa na maa si ne ndekete bi ma dara ba dara boole ja sama nguur gi alak na ma sama alal gi jëriñ ma dara sama moo ba tànk na ma rëcc rek rëcc rek yoo ko tiit sama borom yàlla mu ciy dugg ñu koy tontu waa jooju. Allah. خاطئون ba mu nekkee di rëccu ak di saay saay tamit métti yooyu xam ngeen suñu doonaa lu mu ci duggee danaan xujuruhu malaaka yi jàpp leen koy ci waaw malaaka yi lay wax de xujuruhu jàpp leen ko te xulluhu ngëñ leen ko ngëñ leen ko summa jaxima talluhu lakk leen ko ca safara lakk leen ko ca safara ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاتركوه من الكدوم تتكلم يا ابو حمله بدابا موي جيروم نياف كي خطب جيروم نياف كي خطب في حسب الملاكا ما لوكو تاغي من بدي نياف نفر لا سامر يا من بدي جيروم من الكدوم كان بيتبخم تجلون ولا جيخ تجلون ولا واف góor la woon wala jigéen ture la sant wala njaay wala jóob tijaan la woon wala murit non non amul kenn set loolu li ñuy set lenn la lan la jëfandikoo woon ci alquran lan la jëfandikoo woon ci sunna sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam mu tax jaar na ci fa war a jaar kaa kaa ci wànda jël la bokk kaa jëlee kaa la bokk ba ñëpp mbay jaaruñ ci jaar ci ni jaare jaare na bokk fu ko neex kaa la la rek ak sabab من تابع من الوجل مثل ديالك إنه كان لا يؤمن بما يراه ولا يحض على طعام المسكين أي تستقل منه أي جدا تقول لك أفضل مسكين من دون ديالك لا خمس واجي وخمس دي بوكنا يلا أمن من أولك يا خمان عم ونك واجي سنك لو نك بوش دبوت بوش دبوت لو كانت يا دليل بسفر من الأخبار سوا يلو خمس دي باسر loo ko gëmee ma xaamate yow ma xaamate daa sori te ñu bëree bëree koy wax bàyyi naa ba yow xaam ñu ne ah yow ma xaamate yow daa sori ma kenn daa xamul kañ la te ñoo gëmoo ko rawatina su fekkee ne bit yow ma xaamate bi ngay bit bit bi la koy bit taxul la mënu laa tax a def lu baax mënu laa tax a bàyyi lu bon tëkku yu rëy yàlla yu rëy yi muy tëkku su fekkee mën laa tax a ci yoonu jàkk bi mën laa tax a bàyyi li ñu wax sa bakkan te du ko wut ak yàlla bëgg kon yow gëmu ko gëm gi da nga ko wax de yàlla ñu ne yàlla amul yéen a yàlla waaye yemu leen ci wax waaye nag li ngeen jëf la la ñu jëf mooy dañoo jëf li dëkk wér yàlla santaan ci téere bi yàlla dañoo jëf li dëkk wér yàlla santaan ci téere bi seeni pas-pas loolu te itam ni ñuy àndante ci kër bii duñ ko àtte ci alquran ak sunna ba tax nag bu fekkee borom alal la woon du jox miskin la jur yëpp te borom alal bu amee dëkk ay miskin daa war a yéen miskin yi te jur yëpp tam tax na loolu mooy alaaka bu yore nekk diggante borom alal ak miskin te yàlla lim tëri alaaka boobu li tëri alaaka bu yore nekk diggante doom ak baay baay ak doom jëkkër ak jabar nga jabar ak jëkkër dëkkandoo ak gan loolu yëpp bu fekkee yàlla dafa tëral ay yoon yi ñu ko war a jaarale leer ko ci alquran leer ko sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ne moom daw ci da faale dara fa ko neex rek leen jàpp fa fa lëngiteen boobu ak toonam yooyu moo tax ba laysa lahu yawma haahuna xamim tey jii ci amu fi xarit ci yawma qiyamate sama bisa man yàlla man dong maa ko moom yooyu ne yawma qiyamate moom dong maa ko moom loolu bi gën wax ci fatiha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 ñu ne am na waaye mu ngi bokk ci ñun euh, àjjana rek àjjana rek direct àjjana non non àjjana directement rek amul jaar fenn yéen suñu mën ku wax nga dugg ko kay ma àjjana rek ah donte julli woo donte wóoroo donte jaaroo teel a jaar na sa sa julli àjjana rek donte yaa ngi def li yàlla tere di bàyyi li yàlla santa di bàyyi li yàlla santaane waaw dinaa ci woon si di nga bokk bokk ci àll bi ma la gën a bokk ci sëñ tubaab bi nag ah loolu dëgg la coow yi daa bari ci àddina waaye nag alaxira moom benn baatee jib mooy baatu yàlla jannaa ka fay am mooy wasa yàlla bis ba rek kenn na ko moom kenn na ko moom kooka mooy kan mooy yàlla subhanahu wa taala bis boobu nag nga dem fa te awu ba xar waaye yàlla dem naa ba xar tontu dara ci yàlla ma xartu wala xartu wala mu ndax yàlla li mu la sant sali woo fi la jaaroo jaari woo foo nga ko jaar jaar woo ñàkk fa la ko jaar loolu lépp la bàyyi woo nekk ci loolu nekk ci ba dee bi sa borom nañ ko lefal yow balaa wala xam ni tey fii amoo fi xasam wala taamun wala taamun tey amoo fi aw ñam boo xiitee boo xiitee amoo fi aw ñam te daf dëgg fi da nga mar waa kafara daañu xiit daañu mar waaye sa borom yàlla ne amuñu fa aw ñam nee na ama kay illaa min gislin maanaam gis nañ la muy lekk xam nga ne gis nañ nag dëkk wàññar ji ñore ci waa safara mooy gis nañ dëkk wàññar ji ñore ci yarami waa safara mooy gis nañ sama borom yàlla ne moom la waa safara du lekk suñ bëgg loolu duñ lekk ndax ñu lekk seen mooy ne dañoo réew ba gannaaw ñu jox leen dëgëram bu ñu ruyal dëgëram bu ñu ruyal boo ko tiimee boo ko tiimee tëmb naan bu ko sa kanam tiimee bu lakk Eh, cuunayu tàngoor ñu alaw ko te deru kanam yépp day def daggat ne bëpp ci goudron bi te kat dañ ko naan dañ ko da nga lekk depuis wàññil jëg garab baax daañu yoon yi ñu aw suñu ko dëpp lii moo nekk la tàmbali fasaad yoon yi ñu aw lii moo nekk la tàmbali fasaad te kamu dox suñu diggante loolu yi ñu xaree mooy ki ñu mën a yoon ba ngeen déggee ñu naan ab sëriñ day yóbbu nit àjjana ak sëriñ sayyidina Muhammad kay sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañu leen di ngëm di leen ceena yéen wax kaay dem àjjana ñu laaj ñu ngeen leen jiital ceena ñu baax dina ñu laaj loolu li ngeen ci jublu li ngeen ko dégg dañu ne yaakaar ne sayyidina Muhammad jublu mooy maanaam nga jub àjjana man mu neex naa tóotóor yu bari yaag way yu neex yaag musique yu neex yaag xéewal yi fay déglu ana xet gi rek tabarka la ñëw na ajara ngay demal yow wóor na ne boo demul safara gi rek ngay laan gaa xam loolu jublu déedéet li ma jublu mooy ay gaa yoo xam ne dañoo nekkoon ci àdduna ñu leen di forcé pour ñu jaar ci l'islam pour ñu jaar ci alquran ak sunna forcé bu leen doon forcé ba mu ne lépp ñu ngeen forcé ko loolu mooy jël bi ngeen ngeen jëlee àjjana sëriñ yi tam xëy na mën nañu baat jëlee ci boobu yaatu naa sëriñ bi la tekk ci yoonu cànkate sëriñ bi la fekk ci yoonu bakkan ak bànneex mu di la jàngal di la xutba di la waar di la won yoon wa di la ca féete ba tax nga mujj dem keneen ku bukk tak nga doonoon kooka tax loolu yoonu àdduna waaw loolu ma sa koy ñu jënt àdduna ndagam jàng waaye bépp sëriñ boo xam ne mënu laa tax a bàyyi li yàlla tere mënu laa tax a jëf li yàlla santaane mënu laa yóbbu fenn dara la la mënul daxee ba dara boole jeex mën a lu am naa sëriñ boo xam ne moom ñëpp yow mu jaar si yow la jaarlu li muy itteewoo mooy teraanga ji ngay amee si yow nu saxe bu la yónnee nga daw bu ko am saxam na nga bàyyi ko ko boo xamee ne dafa def nga yëg tam xaar bu fekkee sëriñ tur bu bokkul ak sëriñ taalib wutal leen ko yow da ngay tooñ ak sëriñ ak génnoon suñu borom yàlla laysa lahu lyawma haahuna xamim mu ngoog amu fi ab xarit tey de wala taam amu fi ñanit illa min ismiin xanaa ndax ismiin dëpp wànjar ak daat foofu dëpp wànjar ak daat yàlla incha allah musal yàlla ko yàlla umpale yàlla na yàlla dimbali baal ñu suñuy bàkkaar yàlla na yàlla may tawfiq ñu jaar ci ngërëm sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla dimbali ba ñu mën a gañe suñu bakkan yeeg suñu bànneex yi bagaas yoonu yàlla te bàyyi ay tereem lii leen moom la suñu borom yàlla wax ne moom la dencal ña nga xam ne nii ñoo nekk ca naari ji xam ne gannaaw bi mu leeralee la mu dencal waa àjjana su ñu def saar yi nag suñu borom yàlla gin na ci ay nit ñu foora foora foora foora ñun yooyu lan la wax فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون وقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم mbaɓe allah فلا أقسم ما ma يلا jin لا أقسم ما oqsimu moo yàlla buy jiñ ci lu muy war a jiñ ñun doomu aadama yi li ñu nii noonu mooy kuy jiñ da ku la gën a màgg nga dégg tijaan da mun a barke Cheikh Garci dégg mur mun a barke sëñ la la waaye balaa may weesu foofu yi danaa leeral ni yàlla day tere loolu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw liyasmut kuy jiñ ci yàlla nga noppi bàyyi leen barke sëñ bi barke sëñ bi ak ku sëñ bi mën a doon balen ko ndegam ci ndigal yàlla ngeen di wéy waaw mu ngoog yàlla moom buy giñ ci lu muy giñ yàlla nag buy giñ moom ab jullit buy giñ day giñ ci yàlla billaahi waaw billaahi la jullit di ginee yàlla moom moo féete kaw ñëpp moo féete kaw ñëpp waaye yàlla moom buy giñ ci lu muy ginee yàlla kat amut lu ko féete kaw kon boog day giñ ci lu ko neex rek ci munaafa nañu waaye yàlla fii giñ na fi giñ du rëy ndax daa giñ ci lépp fala uqsimu maa ngi giñ bima tubsiruun ci lépp lu ngeen di gis wa ma la tubsiruun ak lépp loo xam ne ni gisu leen ko moo ko ne def yàlla giñ na ci lépp ana lu mu giñ dafa giñ ne alquran ji mu wax mooy dëgg alquran ji mu wax mooy dëgg innahu naka alquran la qawlu rasulin karim nekk li ndaw lu tedd la ndaw lu teg la ñuy wax jibril moo ko jëlee ca yaayam muy wax yàlla mu jàngal ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad jàngal ko saxaaba ya saxaaba ya jàng ko tabi'in yi muy law bàkk ci ñun waaw alquran la wax yàlla moom rek mooy dëgg dara melul ni moom dara yemut ak moom lu wuuteeg moom du dëgg téere bii la yàlla gis ne moom dong mooy dëgg lu wuuteeg moom du dëgg saa bu la sëriñ si waxee wax yu wuute te bari ak dellu mom, day moom ak sëñ Abdou Kafaat nee nangam ak nangam ak nangam sëñ diw Diop sëñ diw Mbàkke sëñ diw si sëñ diw Ñas sëñ diw nii sëñ diw naa sëriñ si nag gàññ coow yi nag gàññ nga bëgg a xam ana ji si dëgg demal ci alquran moom dong la yàlla gin ne mooy dëgg ji bàyyi fi moom wa huwa bi qawli shaa'ir tontu waa Màkka alquran du waxe waykat alquran jëmbaat nag doole way xalilan maa tu'minuun yéen seen gëm néew na lool ولا بقول التاهم القران بوخي بخامه كن دوكو ديبل وخي بخامه قليل ما تذكرون من سن وارو نيون لول تنزيل من رب العالمين القران القران اي لا يلا يني واتش مجد في برم اسمان السوس مجد في برم من داخل سلام برم يلا دي وقت كاركتر بمكبه من محمد يمين فور فور فور su soppi woon ci alquran dara lu tuut tuut tuut ma dal ci kaw jëflante ko moom walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil su fekkoon ne bi Muhammad daf maa fenal yokk ci alquran as lëf lu ci bokkul xam ngeen ni ki wax màgg na Seydina Muhammad ku ñu la jaar ci turam naan suma fenaloon yàlla rek ko fa ñëw waaye su ma bëgg ngeen gisee si ne ndekete Seydina Muhammad ci kanamu yàlla jaam dong la. waaye ndegam Seydina Muhammad ci kanam yàlla ndegam ab jaam dong la waaw kon ñi ci def nag ah saxaaba ya nag taabiin awliyaullah yi nag awliyaullah yi ci ci gën a mat baax bu nekkee fa kanam yàlla lu muy doon as njaam su tuuti soo xam ne si nangu na ne mbaam ma bilaal daan war mbaam ma bilaal daan war di jaar ci yoon yàlla mel na xiitu mbaam naa ko maa ko ba ci yàlla suuf wala yu nangu na ko nangoo gën a jaam bamba dib jaam bilal dib jaam abubakar dib jaam seydna mahamad dib jaam wali yu nag nag jaam la yow taal bi wali yu ne wali yu yàlla la wali yu yàlla ba at na ko wax yàlla teg ko ci suuf yëkkati loo ko doon waxee wali yu di ci di ci sànq nit ñi te suñu borom yàlla moom nee na Muhammad su ma ko loolu yow tasawwal alayna ba'dan aqawili kon da ko dee fiix ba jàpp ko ba alat ko yaaxat naa min bu bil yamin kon danaa ko tee di dëgër ثم لقطعنا من هبته فما تجد مخالف يا يا يا يا محمد بقد يا مرسان فلا تتجد بدل تجد مخالف كنت تكتب مخالف ماذا لا واو من سنة محمد سنة متى يكون تجد مخالف لا دمي تاريخ بوداس درجة درجة بجيبنا بجيبنا عقل درجة فما منكم من احد في حاجزين سبب عتم يربح وبدل تقولون